tête baissée moom ko bëggoon dégommer peut-être. Hmm. waaw mais mais c'est-à-dire que xam nga moom nag xam nga xam nga xam nga xam nga nag aussi un directeur général boo xam ne danga ko élire en trois mois hmm. même pas ñu démettre la de tes fonctions pour man waroo xaar sax kenn def sorti pour man bu fekkee tu n'as absolument vraiment rien à te reprocher dans ta gestion man damay def sortie parce que xam nga dafa loo xamante ni il faut que ces habitudes là mu changer Ouleye euh, Ouleye et ñun chez nous ah, mën nañu élire mën nañu la sax jox budget de fonctionnement mais amuñu ñun devoir de rendre compte mm-hmm. te pourtant dañu war a rendre compte nag mm-hmm. ci lépp loo xamante nañ ko waxee c'est-à-dire Cheikh Dieng en trois mois mm-hmm. il doit au moins avoir un bilan bu fekkee da ngay woote conférence de presse balaa ngay dindi tuuma ak di joxoñ baaraamu tuuma da ngay d'abord wax yow DG ONAS biñ la ko joxee ci lan nga ko jëlee en trois mois lan nga fa jot a réaliser ak ci fi nekk sax ñu dem ba mën a xam sax au moins ci ban vague de suspicion lay demee mais yow c'est-à-dire tu es DG tu arrives ñëpp di xaar sa sortie tu attaques une seule personne finalement c'est des problèmes kon crypto personnel mm -hmm. ça n'a rien à ak gestion wu ONAS bi euh, te foofu la en fait c'est-à-dire on est resté sur notre fin par rapport ak sorti wam ci lu bëri maintenant Cheikh Tidiane Dieye euh, <laughs> moi je m'attends à ce que aussi il, il apporte la réplique parce que bu amee yenn accusation yi jot a génn en tant que ministre de l'hydraulique lu ci bëri war na ko leeral bon on comprend que aujourd'hui il était à Touba et que dañu màggal gi mais bu ñu ci jógee vraiment pour man c'est des débats yoo xam ne waruñu ko éviter des débats yoo xamante ne quand ça intéresse le public et que ñi ñu bëgg xam mode de fonctionnement yi nu muy demee pour man l'information doit être accessible à tous sauf vraiment xanaa peut-être nga am souci wu ba ñu uññi sutura wu doomu aadama mais lu jëm ci wàllu gestion beeg doxalin bi ak à la limite même on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé man je suis curieuse de savoir lan moo xew ONAS ak lan mooy justifié parce que lii quand même c'est inédit hmm. nga nommé benn DG boo xamante ne toogu fi defu fi diir sax ñu yëkkati ko hmm. te polémique bu bëri topp ci hmm. maanaam coow lu bëri topp ci léegi nag coow loolu nag foog ñu seetal ko euh, pour que moom Cheikh Dieng qui soit libre mu dem mën a liggéeyi feneen et que Cheikh Tidiane Dièye aussi mu lever tous les coins du voile par rapport à cette affaire-là qui moi je juge mérite d'avoir plus d'éclaircissement que li ñu ci jot jox ni as mais bu ñu xoolee ci situation yi am ni yëpp Mamy Samb dans ce cas-là est-ce qu'on peut réellement tendre euh, vers du jub jubal jubonte en tout cas ku mel ni Babacar Touré euh, pour di taskatu xabaar moom il en doute def na ci benn tweet euh, ba sax tekki ni le réveil risque d'être brutal ba noppi itam jàpp na ni ni euh, système bi moom euh, bennoo dañ ko fi teggi rek teg fi li nga xamante ni moo di Pastef waaye ba te yëf yi moom changé wu. ci lan la ko teg docteur Cheikh Tidiane Dièye est-ce que du moom la doon waxal sax. moom Babacar Touré naan journaliste bi ñu yónni. waaw mais moom ci la la ko teg. est-ce la doon waxal. ah nee na le Pastef a remplacé Macky mhm. mais rien de véritable ne change dans ce pays de nouveaux lobbies prennent possession du pays et les complots continuent ñëwaat tamit euh, fii euh, ni euh, si on pense qu'un système à tous les niveaux mis en place par des affairistes peut servir un peuple qui espère du jub jubul jubanti on se trompe le réveil risque d'être brutal. Hmm. bon peut-être que lui à son niveau il a des informations que nous on n'a pas. ñun li ñu mën a juger mooy euh, comment est-ce que euh, le gouvernement est en train de diriger li nga xamante ne moom mooy réew mi les décisions yi ñu jël les actions gouvernementales qui sont posées ak euh, vision yi nga xamante ne moom la ñu am à l'extérieur après maintenant tant qu'on n'a pas ces déclarations de politique générale là c'est vrai que ñun on reste un peu sur notre faim parce que dañu bëgg xam dëgg-dëgg fii nga xamante ne foofu la ñu bëgg yóbbu réew mi mais dans tous les cas en quatre mois pour pense que c'est un boo xamante ne mu ngi teg ay léegi nag xam nga Sénégal aussi dafa am benn défaut bu nekk ci ñun on est très impatient te il y a des dossiers yoo xamante ne kenn mënu koo taxaj lem xam nga pour man lépp loo ci gis procédure la te damay faral di wax ni Sénégal euh, mooy réew moo xamante ne màgget mu feebar la foo laal day metti boo xool dans tous les secteurs parce que pratiquement tous les secteurs sont en crise parce que euh, rien n'avance plus euh, il y des audits qui sont en train d'être faits il bu bees buy door a ñëw et puis surtout tàmmuñu bi nga xamante ne moom la le président bëgg indi mooy le fait que lépp loo xamante ne lijjanti la woon dëngate la woon dóor la woon ñu ñu dakkal ko le sénégalais dañoo habitué à ce que fu ci nekk ñu mën a lijjanti ak fu ñuy jaaree ci suuf mm. léegi nag dafa mel ni voie yooyu yëpp dañ ko xaw a tëj et loolu nag pour man c'est une bonne chose gis nga dëkk bu nekk en construction et dama jàpp ne état itam boo ko falee euh, Penda tu lui donnes au moins l'opportunité mu mën a def ay preuve am l'opportunité mu mën a avancer et vraiment ce qui est dommage tout le temps focus sur évolution euh, a je me suis dit ces gens là sont en train de ñu ngi dajale xaalis je comprends maintenant pourquoi le système français ñu miser tout sur leur impôt parce que comprendre nañ ne impôt bi mooy doxalu réew dëgg-dëgg li mu mën a générer en terme de xaalis kenn xamul nu mu toll quand on te dit que l'État a débloqué millions alors que l'enveloppe d'avant n'était pas comme ça et je me demande d'ailleurs l'enveloppe d'avant la réaliser ci bu Touba bi ndax am na lu bari loo xamante ne buñ ko fa liggéeyoon xaalis bu buñ ko dugoon fu ñu ko waroon dugal pour man il y moins euh, xëy na peut-être euh, d'investissement en termes d'argent boo xamante ne daf fay dugg hmm. mais tout est politisé c'est-à-dire ba à tel point que boo ñëwee bëgg teg lu baax sax yow tu vas finir par être diabolisé li am en réalité mooy niñ leen doon diaboliser avant ñuy nekk ci pouvoir bi noonu la ñu continuer ba léegi di leen diaboliser ce système là n'a par contre hmm. c'est-à-dire te nit bu fekkente ne bëgguloo ko penda kooku mënul dox jéego yoo gis ndax loo xës ba bañ bañ nga ko loolu mooy problème bi pour man on devrait dépasser les émotions et que ñuy analyser froidement et de manière réfléchie par rapport ak li fi nekk di tegu lépp et surtout ñu faire confiance xam ne aussi dëkk boo ko bëggee defar tu ne peux pas faire une omelette sans casser des œufs am na loo xamante ne il faut que mu dañ ci réew mi bu dee dañ nag dina metti sénégalais yi dinañ ko yëg mais bu ëllëgee fekk lépp defaru lépp tegu ci yoon pour man les gens plus bénéficier d'un Sénégal qui sera beaucoup plus sain et beaucoup plus organisé. Euh, euh, Oulaye ci ban côté Babacar. Babacar Touré lu mu wax. yow sax nee nga est-ce que est-ce que du Cheikh ah, moom la du Cheikh moom la doon waxal ndax Babacar kat ñun ñëpp amoon nañ ay information mais moom détail yam ca amoon <laughs> moom rek nga amoon <laughs> bu dee Cheikh Babacar ngay waxal barki yàlla xeex bi maa koy porté Babacar sama xarit. mais euh, Babacar forcément lui il a des informations parce que c'est un journaliste d'investigation oui. et que derrière si si peu au Sénégal ñi nga xam ne ce sont des journalistes d'investigation moom bokk na ci ci mm. ki ci gën a siiw parce que sax Sénégal moom rek lañ ci xam koy def euh, lu ni mel mm. et que Babacar Touré euh, bokk na ci nit ñoo xamante ne tamit duñu waxantu et que Penda tamit foog nga xam ne euh, ñi nga xamante ne euh, ñoo nekk ci tête bi dañ leen faa teg rek ministère yi mais boo xoolee ñi nekk ci bureau bi y plus des hommes de Benno Bokk Yaakaar ñoo nekk ci bureau yi que mu nekk port que mu nekk ONAS que mu nekk feneen ak feneen parce que ñoom biñ dem demee ba xam ne dem rek moo fi des dañoo blindé li nga xamante ne moom mooy contrat yi blindé CD yi yokk li nga xamante ne moom mooy contrat yi nga xamante ne signé nañ ko mm.

dañoo am contrat yoo xam ne c'est en béton mm. et ces contrats là mënoo du jour au lendemain nga jékki-jékki génn ko moo waral tey lépp li nga xamante ne dafay xew ci ministère yi boo xëyee to dem toog waa APR mm-hmm. dafa mel ni foofu nu dañ faa am seen tëb yoo xamante ne tout ce qui se passe dans les ministères tout ce qui mm-hmm. se passe dans les bureaux aujourd'hui waa APR ñoo koy njëkk a waxtaanee sax ñun ñoom ñoo ñu ko yëgal et que kooku nga xamante ne dafa nekk sa ginnaaw ngeen war liggéey yéen ñaar bu dee bëggante ak li ñuy wax ne dina liggéey Sénégal dina dina dina yomb du mhm. yomb fait moo derrière Babacar mun na wax loolu y a beaucoup de frustration aujourd'hui mhm. dans les rangs de Pastef parce que derrière ils se sont battus ils ont combattu avec des gens ils ont cru en projet avec des personnes ils se sont battus arrivés au pouvoir avec des personnes mais aujourd'hui ils peuvent pas prendre ces personnes là parce que derrière ils ont trouvé des euh, contrats yoo xam ne c'est en béton et que derrière ñooñu ñu ngi toog di leen xaar pour ñu liggéey ñu ngi bëgg dàq ñii mënuñu leen dàq parce que non seulement fekk nañ fa ay nit yu amul compétence ay nit yoo xamante franchement mënuñu liggéey ak ñoom parce que gis nañ ne du dul tegal leen num tërati ah, ndëgg sërëx nekkeew ñu ko fa ak lépp lu fa xew ñu yëkkati ko dem nett la ko sa noonu nag bu xamee ci li ngay xëy ak li ngay gont chaque jour mais loolu loolu moo tax bale jomaay bi dafa war a yegg foofu mhm. lu loo xamante ne daf koy soppi parce waxantee dëgg tamit. réew mënuñu c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñoo fi nekk l'ancien système. Euh, ñenn ci ñoom di di yàq c'est-à-dire gaskat yi. ñooñu il faut que ñu génnee leen. ci ñi nga xamante ne moom ci ci sphère u état bi ñu nekk. on ne demande pas de les renvoyer. faut peut-être les affecter ailleurs je sais pas mais il faut trouver la solution de les écarter du système parce que tant que ñu ngi fi nekk. comme tu le dis ils ont beau faire des actions lu ñu gas lu ne ñee dañuy jaaraat ci ginnaaw mais ils ont des contrats en béton mais c'est pas ils sont ils sont pas tous nombreux du ñoom ñëpp ñoo am ay contrats en béton ah. eh balaa ñoo dem xam nga nan lañ def dañoo CDIser ñi jël ñi yokk salaire gël ñi nu ci bureau yëpp la. yow wëral nga dem ci DG yi nga xool liggéey doo ko fa am ci bureau yëpp lañ ko def que mu nekk ONAS que mu nekk. waaw nañ leen affecté waaw mais même bu dee loolu sax mën nañ leen affecté mais mën nañ leen affecté gis nga dañoo miné terrain yëpp balaa ñoo dem gis nga ni euh, ministère yëpp doog di dem seen yoon moo tax ce serait difficile aujourd'hui nga ñooñu nga jékki-jékki rek parce que tamit nañ waxante dëgg non doo leen dàq doo am rupture euh, de contrat waaye boo leen na procédure bu affecté laa lay def voilà ah, <laughs> affecté ma lay affecté kay ah c' est, c' est mais pour l' instant. Ah, euh, si tu es fonctionnaire de l' état mën naa la affecté. Mm-hmm. Oulaye en trois mois nag loolu yëpp day naqaree nu si lijjanti. moo tax tu vas voir que dans le rang ñu ngi wax ne ñoom du mu ñu parti a mm-hmm. parce que derrière ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëmoon projet bi xeex projet bi ba ba projet bi ba toog ñoom seen bopp ba léegi mënuñu fexe ba commencé liggéey ak ñoom et que derrière mun na leen indil. ay ay ku te derrière lu bëri mun na leen koo yàqal mais loolu la situation boobu à eux de trouver d'être euh, des génies et de trouver nu euh, euh, solution boo xamante ne dinañ leen permettre ñu mën a avancer jógee d'un plan A dem ci un plan B. c'est ça enquête yi jub rek bu enquête coow li léegi mu wàññeeku. Mhm. tey 16 le premier ministre Ousmane Sonko président li nga xamante ni moo di installation comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Mhm. boobu la événement nag pour rappel dina am du également euh, le PM. Mhm. Euh, mu ngi sant euh, comité bi nga xamante ni si njiit ga di professeur Mamadou Diouf. Mhm. ngir mu dajale lépp lu nga xamante ni ay preuve la témoignage ak it ay documents su ko defee rek jeune génération bi gën a mën a comprendre li nga xamante ni moom moo xewoon. Mhm. ca ca ca ca Thiaroye 44 en 1944. également nee na boobule commune comité aura pour mission de proposer des actions qui honoreront la mémoire des victimes et sensibiliseront les générations futures composées

bu amee sañ-sañu na day ñëw teewe